astaghfirullah mu ngi noonu. Mm-hmm. allahu akbar. dafa nekk baat boo xamante boo ko tuddee di ko xeeb. Mm-hmm. lu rëy rëy rëy la man. Mm-hmm. dafa nekk baat boo xamante ne. yonent nit da doon ñëw ci moom ne ko damaa toog lu yàgg aw ma doom. ndeysaan waaw. xam naa suñu doom yi nga xam ne ñu ngi nekk di sëy. mu ne ko alayka bi istighfar. ndeysaan alayka bi istighfar yi. nga ñëw ne ko damaa tëju aw ma jaf aw ma alal aw dara mu wax la mu digal la ko. xale aaya ba la koy delloo rek ca sóoratu Nuux. so sóoratu Nuux. lu mu fa qultu. astaghfiru rabbakum innahu kaana. gaffaaran yusri samaa aleykum midraara kon boobu mooy midraara boobu. soo bëggee si mbir am abondance. lépp loo nekk bëgg nga ci barke. waaw abondance mooy barke. lu saawa baawoon lu saawa baawoon bu bëri te doo xam fu mu jugee. dala wax istixfaar. mu mel ni dooguma la yàlla bu la yàlla dog bu mm-hmm. ma comprendre bu baax li nga xamante ni moom nga ubbee. Mm-hmm. ak ni nga faram fàccee baatu istixfaar nekk na la nga xamante ni mënul ñàkk si dundu jullit bi. Mm-hmm. ndax doomu aadama buy dox saa su nekk mën na pakkastalu te yàlla mën nga ko tooñ sa te sa léeg-léeg nga yëg ko wala nga bañ ko yëg nga tey ko wala nga bañ ko tey bu mel ni kon baa xee buntu xéewal yeeg barke yeeg yëpp caabi ji moom mooy waaw xam nga Cheikh Tidiane radiyallahu anhu boo demee ci yurdu Tidiane. booy laazim. gannaaw boo waxee Fatiha ba pare. di nga wax astaghfirullah. booy wasifa. ginnaaw boo waxee Fatiha ba pare. di nga wax astaghfirullah la ilaha illa huwa kuyum. kon astaghfirullah. dafa nekk képp koo xamante ne dafa am loo bëgg sa àdduna. te jamono yi nag ñëpp war a tuub war a war a tuub jëm ci àlla gis nga ni yàlla waxoon xeetu Moussa gi na leen fa tuubu am faqatuloo anfusakum loolu dafa war ñëpp nu nii fu nu nii ñëpp la war ñu tuub dem ci yàlla ñëpp la war ñu tuub dellu ci yàlla doxal ma ko madame Ndiaye ñëpp la war ñu jéggul seen borom est-ce que di nga wax ne man defu ma lu bon maa ngi toog maa ngi jàpp sama bopp njaaroo moom moo tax duma duma dama jéggul sama borom déedéet Seyda léegi dafa wax inna fatahnaa laka fathan mubiinan mhm. yaghfir llaahu laka maa taqaddama min zanbika wa maa ta'akhkhara kon comme yonent bi saa salaam li ñu jéggal bàkkaar njëkk ak yu mujj yi mhm. dégg nga te terewut mu ngi wax astaghfirullah mhm. terewut mu ngi jéggalu boromam kon loolu ñàngalee la si ñëpp faxlam annahu laa ilaha illa allah wastaghfiru li zanbika wal mu'minina wal mu'minaat kon yàlla bu demee sax ba yonent bi saa salaam di ko di ko wan ne ko dinaa la jéggal say bakkaar soo waxee astaxfirullah yaag yaag ñu julli ñu góor ñi julli ñu jigéen ñi kon astaxfirullah jombut kenn astaxfirullah mooy tax ñu jugee si suñu jafe-jafe yi ak nattu bi ñu dañu uhuh. mën a nekkaat si suñu jàmm uhuh. kenn ku ne na jël jéggulu yàlla def ko armam kenn ku ne na jàpp na mbir yi moo tax mu am mu jégg waaw waaw jëm ci yàlla mm-hmm. mbir yi mënu kenn ku rek na jàpp ne yaa am yaa tax sa bàkkaar la jàpp jàpp sa bàkkaar mm-hmm. moo tax yàlla dinañu natt mm-hmm. bu loolu amee rek ñun ñëpp dinañ tuub dem dellu ci yàlla fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana ghaffaaran kon nit ñi nañ jéggulu dem ci yàlla nañ tuub seen bàkkaar yi bàkkaar nag ni nga ko mën a defee bëri na. te meru yàlla. du xool ne kii ko def wala kii ko def de. yàlla meram da koy tasaare rek sax euh, doguma la euh, mais yàlla borom bi subhanahu wa taala lu mu wax wattaqu laa tusiibanna lazina zalamu minkum xaassa xam nga ñax bu wow. Mm. day lakk bu tooy. tey bu fekkee ne tey yow def nga ñu ngi bàyyi ñii di def musiba ñuy def musiba nga ne sama yoon nekku ca la daloon ak siiraanu salaasa dina la dal la daloon unku baak euh, ca néegu ñax baak jinax jinax ba xaw ma kan la waa ak yaayu buur ba dina la dikkal kon euh, ah, sa asan foofu li nga xam ne bàyyi wax na ko dafa am solo ku nekk na jàpp ne mbas mi li ko indi man maa tax man sama bàkkaar la mm-hmm. xam nga euh, yonti yàlla ayub alayhi salaam alayhi salaam ci suratul anbiya boo demee aaya 83 84. yàlla lu mu wax wa ayuba. isnaada rabbahu anni masaniya dur wa anta arhamur rahimin ayub ku nekk xam na ne feebaram boobu. defe naa Ebola sax feebaram boobu moo gënoon a bon. la ko daloon mu ne waaye ba mu woowee boroomam fan la mujje fastajabna lahu fa kashafna baabihi min durrin wa aataynaahu ahlahu wa mislahum maahum rahmatan min indina wa zikra lu ci topp li abidin il faut ñu delluwaat si jaamu yàlla il faut ñu delluwaat asan ci dellu tuub man gis naa ni lii dara duñu ci génne bu dul tuub gis naa ne lii dara du ci génne te tuub nag mooy lan mooy reconnaître sa fait mun a muñ aussi la nga xam ne mooy mooy yàlla mooy bàkkaar mm-hmm. li neex-neex bakkan bakkan il faut ñu jéem a jàng ndax gis nga ayuba dara génnewu ko si budul budul lu ko ci génne tuub dellu si yàlla mm-hmm. ak wóolu yàlla waaw mm-hmm. ah xam nga foofu itam mooy wane ne ah foofu nag oustaz xam naa ne ah ñu ndax xam naa ne ngelaw li moom mu ñuy laal bu baax a baax mu ne mu ne yàlla yow lii dooma seetaan xam nga li ñu naan dooma seetaan ma fii ñaaw kan moo ko woyoon <laughs> am na ku ko woyoon la tuddee xam ne diw duma seetaan ma fii ñaaw dama sagal waaye ayuba itam dafa ne yàlla dooma seetaan dara lii di ma lor wa anta arhamur rahimin ndax yow yaay borom yërmande yàlla boroom bi subhaanahu wa taala ne leen lépp lu nekk si yéen ci lor dinaa ko dindi ndax lan lu tax yërmande gi nga xam ne waaye nag wa zikra lil aabidin lil aabidin très important lil aabidin aabidin nag ñan ñooy ibaadullah wala nga ne ñan ñooy ibaadullah dégg nga ibaadu rahman allazina yamshuna ala al ardi xawnan fa ida xaatabahum aljahiluuna qaalu salaama hum allazina yabituuna li rabbihim rukaan sujadan wa qiyaman kon niñ koy faje mooy ku nekk war nañoo tey delluwaat dolliwaat suñu jaamu yàlla war nañoo delluwaat ci yàlla borom bi subhaanahu wa asam ginaar yi nekk ci poulailler bi borom poulailler bi yore paakaam buy rey est que ginaar gi daka naan man mii ngay jël déedéet moom mooy yootu loxoom rek ka gën a ñàkk chance nag mooy xam naa rek ñu bëri solo ñu mel ni yaa sayda ca muntu ba lay taxaw di yërndu kii di ñëw fii lan la ba mu ne ko coppet daal di rendi mhm. fekk ña mu nekkal ñoom ñëpp ku nekk mënoon naa dem. kon li nga waxoon sa yaay keroog rek ne ko yaay booy bi nga fi jógee si waxtaan bi ngeen mujjee bi ñu mujjee def nga ne yaay dangaa defee ne coppet coppet bi dina fi bàyyi kenn mu def ko ay ree waaye coppet coppet bi du fi bàyyi kenn ndax yow bu fekkee ne ku la mag dem na commencé dem na koo mag dem na ki nga juróon dem na sëy sët dem na li oustaz Alioune Sall di wax nee na dangay dem ci cimetière yi gis ko juddu tey dee tey koo xam ne yéen a bokk tur bokk date de naissance mu dee yaa ans ou trente ans si ginnaaw li bu sekk di wax naan ma bul waxati loolu parce que ñun moom il faut ñu dund cent ans ma ne ko cent ans jaru ko parce que dañuy def ërëm bu boobaa dañuy naax ah jaru ko fi nañu nañu dund rek l'essentiel bi